ndax jëkkër moom dafa tawat ñàggaar lool moom sëñ Mor nga de waaw li ngay moom mooy la man de maa ngi ci di wax léegi de nañ de ah, xam naa ne baax na de daa bàyyi dama daan dëppale euh, daanaka pan ah. ma ci yéeg ku mën a sàkkat laa woon nag. ah bon waaye daal lii de. lii la ma ko daan dëppale lii. nan lii la ma ko daan dëppale. ma ci ah ah. yaa yaa daa yaa ngi yaa ngi daal. naa mag ah yow kay da ngaa jëm mag kay. jëm naa mag jëm naa mag. daa ma teg nee panda. moor. moor nga nag ñam nga de. kii ba ma jee tool ma. ah waaye ñam nga nag. dama laa bëggoon wan misaal. waaw waaye yax yaa yax yaa ma dund noona. léegi